phase de préparation pour l'Open international du Sénégal daaw ñun ñoo nekkoon meilleure équipe ci Open Sénégal bi le 24 le 25 incha mois de juillet lay doon Dakar Arena. walay xoyam xoyame. maa ko wuti ndam li Sénégal ci kanam incha allah. waaw I refuse to think we need saving. Something good. la 15 juillet à l'arène nationale le retour extraordinaire de Petit Production mbokk yi lamboo ko soxla woon moo tax mu ñëw andil leen ñaari xale yi nga xamante ne nii lamb daf leen namoon lool Siteu bu Ngor lastkri bi doomu Ngor la jël daal di koy boole ak alin Sey numéro 2 doomu waalo waaye mbokk yi Petit Production yemul foofu ndax bu Boucher Ketchup du xam ngeen ko daanaan bi champion bi moo war a jàkkaarloo ak Ziza bu Pikine Benteñe écurie Fass moo war a jàkkaarloo ak usine bu nangal ma première édition drapeau Malick Fall service continent continental waaye bu leen fàtte benn yoon mbokk yi Milkzo dina fa jàkkaarloo ak Modou Anta numéro 2 drapeau Serigne Alla borom Bambey waaye mbokk yi Bou Siteu champion bi dina fa jàkkaarloo ak Ramdan Junior drapeau Modou Fall commerçant bu mag ca marché moo tax mu ne supporter 2000 francs amateur mil francs loge officielle 10 000 francs barka yonent bi ma sa si dara yow du ma sa morom si dara eh génn leen ci rek génn leen ci rek génn leen ci rek génn leen ci rek ah ah na ci ànd yi génn génn

damay dem yaram bi tàng na de. dama ne damaa ñëw damaa ñëw ne leen damaa ñëw noppi damaa ñëw noppi ma ne père kii moo remplacé sama kër sama kër su ñëw lu mel ni grand combat bu toll nii ñu ne man sëb ma dugg. dama kaa ñaan au début mais ñii boo leen ñaanee day mel ni dañu gën a bañ. waaw day xaaral waaw day nañu ñaan kay bu la neexee ni bañ. ah mais mais waaw day xaaral soo may ma rek ma wax dëgg yàlla. règlement lañu la wax. ana sa ménage. sama ménageur yi lay taxaw. voilà moom kay àndal dugg.

Thank you. phase de préparation pour l'Open international du Sénégal. daaw ñun ñoo nekkoon meilleure équipe ci Open Sénégal bi le 24 le 25 incha allah. mois de juillet lay doon Dakar Arena. walay xoyam xoyamee. maa ngi ko wuti ndam li Sénégal ci kanam incha allah. waaw di si woo ñëpp nag àdduna. I refuse to think we need saving. Something good. Le 15 juillet à l'arène nationale le retour extraordinaire de Petit Production mbokk yi lamboo ko soxla woon moo tax mu ñëw andil leen ñaari xale yi nga xamante ne nii lamb daf nammoon namoon lool Siteu bu Ngor lastkri bi doomu Ngor la jël daal di koy boole ak Aline Seye numéro 2 doomu waalo waaye mbokk yi Petit Production yemul foofu ndax Boucher Ketchup du xam ngeen ko daanaan bi champion bi moo war a jàkkaarloo ak Ziza bu Pikine Benteñe écurie Fass moo war a jàkkaarloo ak usine bu Nangalma première édition drapeau Malick Fall borom service continental continental waaye bu leen fàtte benn yoon mbokk yi Milkzo dina fa jàkkaarloo ak Modou Anta numéro 2 drapeau Serigne Alla borom Bambey waaye mbokk yi Bou Siteu champion bi dina fa jàkkaarloo ak Ramdan Junior drapeau Modou Fall commerçant bu mag ca marché moo mu ne supporter 2000 francs amateur 5000 francs loge officielle